Des belles Day puissants et stylés, des soins qui vous ressemblent. Dream. Dini d'une Dal, moi c'est New Year! 102.3, le nouveau son. eh na nga def sa xel ci li ngay def am ah. lii bu amatee mag yow dinañ ok may dem ba suba ma ñëwaat. travail Ouais, j'avais au boulot. Moi qui voulais t'inviter à prendre le petit déjeuner avant que tu ne partes. Hmm, où ça Bah, tu verras par toi-même. allez y va

<laughs> non il y a deux chaque fois loolu nga Non, wax. non dinaa au premier..! ici c'est beau. ouais c'est très beau. écoute euh, il est temps que tu viennes chez moi. chez toi. oui il faut que je te présente à ma mère. Hey. Réponds-moi. Roger, ne bëgg présenter sa yaay pour ma Décidément hein. toi et tes histoires de religion là. T'inquiète pas je ne sais pas. na sa xel dal man dama la ci forcer toi tu me connais déjà donc côté boobu na sa xel dal. ah man kay xam naa loolu mais dama tu la fait rek. non t'inquiète écoute elle va t'adorer, ça c'est sûr. <laughs> ah, j'ai hâte. Non, t'inquiète. Moi, je t'aime déjà. Comment les dit là-bas On y va On y va. Que toi. sais que tu adores ces gens dans Noir Quand je me suis réveillé, tac, il fallait que je t'amène ici. Écoute Sonia, je tenais vraiment à m'excuser. Hein. Parce que des fois, dans mes diapnes, tu penses que je te comprends pas alors que c'est pas du tout le cas. Même si on en a parlé plus d'un million de fois, on a toujours ces genre de problème. Tu es là, tu me supportes, tu me combles, sonolo, dara tu vois et j'ai autant envie de faire des efforts comme Léonine a nga gën ci a ça. sa écoute je vais pas jouer à l'hypocrite Donc, du nord puis que dafa am femme ma si j'ai quelque chose à te dire je te le dis et de question de manque de confiance en moi c'est juste que je nga def et je peux pas le supporter. mais bébé je t'ai amené ici pour te rassurer par rapport à ça. ok voilà. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu veux Là, Non, rien, t'inquiète, ça va, Tu es sûr Bien. je sais ce que je vais faire. En tant qu'amoureuse de la nature, je vais t'emmener dans un endroit qui est magnifique. Hmm? Une île paradisiaque. On va passer là-bas un très bon week-end et rien que toi et moi, c'est sûr que tu vas même pas vouloir rentrer. C'est sûr. Ah, tu verras par toi-même. Tu es prête Ouais. Ah bah vas-y, mange d'abord, après on va y aller. <laughs> Vas-y, mange. Allô. Oui monsieur Diagne Je suis d'accord d'accord ok je le suis.

naka laay génne sama kër. di ñëw si fii pour liggéey si. di dem bay waaj dugg sama oto ba resto ñëw mu ne ma ñett non balaa ngay dem liggéey faw ñu dem resto jël petit déj bi loolu neexul xam nga mu si gën a neex. nee na maag moom dañuy dem weekend ensemble maag moom. weekend juste. da ngeen di génn Sénégal. génn Sénégal mu ñuy des xanaa moom Sénégal am na ay inimaginable des endroits de rêve yu neex yoo xam ne dama woon chance dem fa rek ak sama am comme week-end la je me charge de la liste Yax Bari Show en week-end warul mm. yomb mm-hmm. premièrement mm. maillot de bain laa ah! bëgg <laughs> waxuma la une pièce waxuma la accompagner de foulard bëgguma yu yàgg yooyu waaw na naturel rek waaw def ba mu baax deuxièmement mm. astuce de femme bu dara sedd nak weekend lañ wax ak bari so du deug changé nga de. léeg-léeg bu yow rek waaye euh, dimbali ma yow euh, yow say say pire nga. wor na rasul la yow say say yow ni nga roubé fi ci kër gi yeb man xam na ma ko. waaw parce que yow fim toll ni yow jéenaa mi nga doxane fi ci kër gis nga doomu jambour bi. ma gis nga amna ya xamantene xamante ne la ma la do ma dooma bàyyi. toogal toogal lépp dafa toog. kii lu mo def ni toogal lébu amna lo xamne même bu amone war nga ko jomba wax sama biir kër sakantuman bi nga xamne amul man jey la la ko doye wala yow lebu yow sama sey bi da mako soxore wala lan la man jey la la koy doye jey sama dom juddu sax defugo niko ñang jure non la ko jure nekinam fi ci kër gi pour mu jàppale sama jabar la lolu kese la meddu lenen yow ngay woyu nan man jey euh, ay ni han ah? mané dama né man xamna ma lepp ya nga dégg man yàgg na ma ci li am na ma experience ci lii am na ma ci technique de nga xale bi nga sourire nga wara bayyi bàyyi. lu tax ba dama ko sourire. waaw xale la boy wax ak mom dang koy sourire dana ko sourire te nak bul defe na sa experience say say bi nga yor man man mo nek ci man man duma say say def ma yofu say say bokuma ak yow. man yoruma ko. et man dama waxul loolu. man dewuma dikku wax ma loolu man baxna baxna ah, ah, baxna doyna doyna doyna doyna na doy ana baba baba la laaj baba <laughs> voilà loolu mom din ma si yàkkamti torop baaba fi mu toll nii daal alhamdulilahi rabbil alamin ndax ñoomin vie ñoomin kan oh. ñoom ñëpp jàppandee si affaire bi nee nan ma fi mu toll nii bu soobee sunu borom bi da ngay ñëw rekk xoola baaba ñoo ñëw taxaw rek ñë bëmax rek moom mbir mi mat na sax waa Tëngéej fi mu toll nii waa xoolal dama ne la may mbokki li bu yëpp taxaw nan nee nan combat bi mat na jeex na tak tak waaw ah, waaw jërëjëf Nabou li nga wax dëgg la mais sa dom ji di baba mhm. bu jaar ci tank yi nga jaar dina yéex am ndam ndax yow sa début carrière mhm. dag ma won su ciumu kay di and ak ñeneen ñaar fukki combat ak juróom benn nga bëri ko ñaar fukki ak juróom yëpp lan na koo daan ma la yërëm ñaanal nga am ndam ca ben muy 26 waye loolu yep dama ko off jël baba ba daf ko dom yobbu ki serigne Matar Jenn nak mu ngem ko ñaanal ko mu daan mu daan. a tuti xol. manam a iñane a soxor waaye yow yow yow waajubaat nit nga ah onan man man ñaata combat ñaata arène la ma toj ah onan man ay ay ki onan man serigne jenna seni soxlawuma ma aw ma soxla ñewal jappale ma si combat bi deug nas man dama mun manuma xamuma amuma sëñ Matar Dieng la am kokoy solution. waaw nga ñew nak manoko nga bako oui. Bonjour docteur Ça va docteur Vous allez bien Ça va bien C'est Yang Diam. Ça va alhamdoulilah. Ça va Ça va bien merci. Je suis passé pour vous féliciter là. Uh-huh. J'ai vu que vous êtes bien débrouillé dans votre projet vital là. Ah merci beaucoup, ça fait plaisir. En fait, vous m'avez parlé que Amnasa Ben Kharibou est un stage. Oui oui, c'est vrai effectivement. Alors en fait, j'ai un poste vacant. Ah super ça. Maintenant, s'il est disponible, la passer demain pour un entretien. Il n'y a pas de souci. Donc Nako Legni comme ça demain inchallah il va passer. Merci. OK, merci docteur. Allez, vraiment félicitations. Hein. OK, allez, bon courage. Merci beaucoup. Merci. qu'est-ce que xam nga lan fu Binta dugg xam nga ko. yow lan la yow Souleymane c'est quoi Hein? nëbbu nga xale bi pendant des années xamul kuy yaayam dem na ba xam ne léegi Binta moo yaayam Binta a découvert sa fille mais lu la teree nga wax ko dëgg bi yow finalement qu'est-ce que tu caches lan la. dama la sip tu oses me faire la morale yow Talla yow Yo Talla yow yaa may defal morale tey yow fa yow tala da nga yow bo je te donne une dignité De la fi yobula la jox la liguey jox la fo deuk ndaka yow sax xel mi ngi sama jabar <laughs> doyu la ngay ak en plus tu me fais la morale oui ma parce que yeen ñaar la yeen rek dama lay wax nga bu ngeen te na mujj tey nga may suivre leer toujours égal à toi-même ki sa tàng sa xët-xët bi loo ñàkk ci àdduna moo la ko mais est-ce une raison pour nga xañ sa dom yaayam est-ce une raison nga xañ Binta dom? mais réfléchis Souleymane Li, fan la lay oui ma C'est moral yi doyna. na dégg nga mosu yow yow da nga pesticide.

Kumba wa ah sek man de amna na lu muy laati su kay la laa bëggoon woo waxtaan ak mom ndax mu nekk nii boppam jaxasoo na te xale la environnement bi mu nekk ni ciow li bari na digëntem ak Roger lu nekk ñing koy wax motax dal ma bëggoon dagal ko billet mu dem Canada ay waaye loolu boo ko defee dina ma neex de mu dem mm. kër Ndey Asu Njaay loolu ñëpp ne ci jàmm mm. mm. Ndey Asu bu demee foofu toog ngi mu ngi foofu. ana Sukay. Sukay mi ngi ci kaw. ah d'accord kon maa ngi am am Eva am. joxaleel ma ko nii. Kumba loolu daal laa bëgg.

sais puisque si oto bi waxoon duñu génn Sénégal mais damaa bëgg xam au fait la parce que insi bi xalaat naa xalaat mais. xam naa uh-huh. nord wala sud tu me dis waa doo wax. yow nee naa la t'inquiète pas waajalal rek. Barisso, hein? t'es là? Barisso Oui, euh, bébé, deux secondes, je te rappelle. Hmm, ok. Je te rappelle, ok. c'est pas possible. Oui ah Eva. naka mu ça va. nama naa la. maa la raw. nag te yow Violette ngay di woo. yoo xamoo ko woon. nan laa koy xamee. kii jànk yaa ngi foofu. moo tax sa temps bi mel nii kay. waa gis nga. léegi kay abonné wu naa si. loolu nga war a def dafa sama yaay moo la ko jox. waaw. su fekkee. sinon nag lu bees. kii jànk li ma la war a wax. xaaral ma tëj buntu. jàng. waaw ay saa bi may dund. bonheur. waaw xanaa bi dalaa nangu maye. Hmm, yow xam nga ni sama pap dama mës a maye Roger mais xam naa ne kut ko kut maa Roger dinañ sëy. sëy <laughs> yow xanaa waxoo ma yow Roger bàyyante ngeen. bàyyante maa Roger ñu réconcilier fi ma dem fi ba Saint-Louis. Saint-Louis. <laughs> ma dem fi Saint-Louis ñu toog ñu waxtaan ma delloo si xelam. chaque jour yow da nga doon toog naa ma baatuwaa baatuwaa moo tax je me suis nag. Ah, maa la conseillé woon loolu de. Ah. mais jànk sëy loolu de sama xel dalu si. bu fi sax nekk naa yaa ngi jéem a yàq sama xel ak yooyu noonu c'est que maa Roger ñu ñaan ñëpp suñu diggante am na ay contraintes mais moom xawma fan nañ koy dëmm jiyee moom xam naa dinañ sëy mm-hmm. li des nga taay sama suñu kër gi nu mu jaxasoowee am jiy naa jàppal jiy naa lépp lu may bëgg a def dama koy def ci suuf kenn bañ maa xamal dara tu mm-hmm. moom. Mm-hmm. ni ma kontaanee mënoo ko sax comprendre booy. sama jabar sax amul fit du fi tëdd. yow lan mooy sa problème. fii sama place la. eh place yaa ngi ci armère yi. fii laay tëdd baax na baax na baax na man xulóowuma fan nga mujjee ak rox ci daba. yow kooku xam nga ko. xam nga ko koo bokkal dëkk nga naan xam bokk ak nit dëkk dafa tax nga xam ko yow kooku xam nga lu ko fi indi. tas sama sëy rek. gis nga kooku yedd naa nee na demut menacé sax def naa ko. fenn la demul nee na delluwul dëkk ba te xolal kooku français yi ma làkk fee keroog ci jardin bi man sax dama choqué. français lan dof bi nga naan français kii dafa jàng dara sunu dëkk kenn dafa jàng. ça se voit que yow xamoo ko yow te xolal man sax waxu kooku taxuma jóg yow eh appartement bi ma la waxoon foo si tool. xam nga lu ma lay xamal man duma som morom dafoo li ma wax li nga wax duma ci def dara dus laa la defaloo. yow nag da ngaa reeb xam nga lan laa lay xamal. tey laa la jox xoolal au plus tard demain gis nga sama caabi appartement soo ko indiwul di nga xam di ko def wala doo ko def nga hésite. Ah. naa ko defal suba suba naa ko defal ko defal suba. bëggoon rëcc ay da nga fàtte ne Dieu juste ay at may reconstituer ma famille def ci sacrifice bu nekk di defaraat sama vie rien que pour avoir une famille de rêve nga ñëw bëgg a yàq lépp mënul nekk te duma la ci bàyyi. Je pense que tu vas me garder ici éternellement. Mais lol, nek. L'autre jour, tu m'as parlé de Penda. wala da nga bëgg ma fekk ji ko ci àllaaxira boobu mu nekk. yàgg Penda yemu leen Penda dee na te yow yaa ngi dund. la police da ngay je m'en fous je m'en fous gis Nafi tant que génnewul ci xelam ay mbiru yaayam ak yooyu fii do fi génn. fen nga demul gis nga ngay dem nga laaj ñu yaax sa aduna ak Anta ñom ñi lay fexel depuis 92 ñom ñoy yàq sa aduna man nak j'ai plus rien à perdre demal nga laaj leen ko bi nga tukki je lan mo xew sa ginnaaw. un décor, votre personnalité devient un style. Des belles des puissants et stylés, des soins qui vous ressemblent. Dream. Vibe Radio, c'est surtout la musique qui cartonne. Vibe Radio. Vibe Radio. le nouveau son.